J'allais les Pikine yëpp il tout le mouvement sportif sénégalais Rawatine Nak, l'AEC cosaan qui nga le manager général J'allais nag tout le personnel de santé bi nga xamante ne secrétaire général exécutif du CDS jaale tout le conseil municipal qui est le président de la commission artisanale ci mairie bi un grand homme nit ku mag ñàkk euh, xanaa rek euh, sant yàlla ci yàlla moom lépp lu muy dogal mbindeef mënu ci dara kon nag dañuy delluwaat su delloo sunu bopp ci yàlla jaale ko njabootam jaale ko famille particulièrement sa famille mais nit ku am courage dem na nit ku am engagement ku am ku am détermination mais ce que je retiens mooy nit ku am courage j'ai compéti plusieurs fois avec lui mais xam naa ne ku bëri courage la. Samba Sarr mun naa wax ne daanaka sama élève la woon Samba Sarr supporter la woon boo xam dafa doon sànni xeer di perturbé mu xëcc loxom ne ko ñëwul nekk dirigeant mu gën nekk supporter bi c'était en 1995 mooy final bu Amar Sarr doon dugal but bu extraordinaire bu nekk yaa ngi koy rappelé deux ans après. ñu def ko président cosaan c'était en 1997 sama sar, menaku saya ko seddal ñaar jël na mbuursam étudiant jox ko sal mu regroupé ko jël na seen dépense su jox ko mu am Samba en soit ada dem marché de moy Samba dama guñu marché far yalla ndi xéewal ñaar yo mën sedd Samba ku bax la cosaan bertul me Pikine mo bert te yalla du def jamais hasard parce que da ngay Samba sar fu mu teud tay mu ngi tëdd si wetu Pape Mandaw Diop le père fondateur école Seydou Nourou Tall ñoom ñoo dend kooku tam militaire social comme Samba Sarr Samba Sarr nit ki sax am problème police mu dem réglé ji ko ak yeneen détails de gauche à droite yàlla na ko yàlla xare aljanna. yaakaar naa ni euh, loolu moo nekkoon témoignage yi ñun dañ ci xam lu bari donte sa yàlla dafa def mënuñu wax waaye wax dëgg yàlla Samba nekkoon na ki nga xamante ne du njabootam kese. du njabootam kese boo ko nekkee njaboot nag day nekk vision réductrice ah, Pikine yëpp ngay wax Pikine yëpp Pikine yëpp ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñàkk ki di kii di Samba Sarr dégg nga le maire li mu wax un homme généreux dégg nga Pape Gorgui Sankhar bi ko interviewé lu mu wax un homme généreux euh, un homme euh, extrêmement disponible yaakaar naa loolu rek lañ gis ci ki nga xamante ne moom mooy Samba Sarr témoignage yi nag du jeex. doo nga xam ne que ñàkk nañu te lañ ko doog a xam biñ ko dugg a xam baax ñàkk nañ ku baax ku euh, du wax ne am naa fit waaye dama ci am ak si néew ak as néew donc mun naa wax ne ci moom laa ko jëlee euh, nee na ma ragal ci euh, yab yàlla la bokk te moom loolu la gëm te loolu la dund il est trop nit bu baax lépp lu ma amoon partagé na ko ak nit ñi mais man nag damay jàpp ni que réussite mooy li Samba Sarr am réussite moom mooy que ki nga xam dafay yóbbaale képp ku xam Samba Sarr rek mën nga wax ni que sekk nga ak moom teraanga même si nekkul yàgg moom directement sa entourage ñàkkul koo xam ne sekk na moom teraanga limu yor da ko doon génn di ko alal bugul dara lepp lu mom lepp lu mus am séddale nako d'ailleurs grand bi wax na fi léegi grand bi premier bourse premier euh, à l'université Def ko jox euh, waccu sal ñu regroupé ko da jël dépasse am diko xagn wa kërëm diko jox wa dépasse ñu regroupé lu mu def ñu ko lim kon do ku nekk da nga ñëra wax sa wal nga dem donc sama Sarr ku bax la ku bax tay dé rek mo mënon li dé moñ tàqali maa ngi koy ñaanal yalla fi mu dem yalla ko gënal fu mu joggé yalla ko yalla yërem té xaré ko aljana yàlla na ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa teeru yàlla na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk njaatigéem foofu maa ngi koy jaale famille bi yëpp nag di ko dalee sama bàjjen euh, Gogo Buudi maa ngi koy jaale maa ngi koy jaale Samba Sarr maa ngi koy jaale euh, rakam bi nga xamante ne tey jii moom moo taxaw taxawaayu sàmba Sarr tey kër ga mooy Ibou Sarr Ibrahima Sarr Serif Sarr euh, Rouguette Sarr musa Sarr ak Souley Sarr donc maa ngi koy jaale ñoom ñëpp di ko jaale famille bi yëpp. di ko jaale senegal di ko jaale finalement waa Pikine di ko jaale waa cosaan bi yëpp. Samba Sarr ñoo bokk Dominique fii man Dominique bi ñëpp la ñu fekk wax na léegi 40 ans man maa ngi foofu bu ma saan ñëw ñëpp lay def bàyyiwul kenn man eh, hôpital yi dispensaire de eh, pharmacie Xaadimu Rasuul foofu laa nekk maa ngi Samba Sarr kere bu muy jën eh, jën kii dispensaire bi pharmacie fa lay indi boolu añ bi ma ko yóbboo. ba añ ba pare la dem day ñëw ba fa ko fe lu fe lu ko fa fekk fa la fekk man maa ngi tudd Baye Dame Ndiaye maa ngi la la laa nekk bon Dominique bu sàmm sa sama xarit la loolu sax xaritu ñëpp la sax bu ne sama xarit may fen jox dépasse damay jox lu ne yàlla na muy xam ne moo mën a moo a fay fay xéewal yéen ñëpp yàlla na yàlla fay xéewal ak ak ak ku ko fekk ak ku ko fekkul yàlla ko yàlla fay sa maa ngi yàlla yàlla nga yàlla xare àjjana Samba aar aar nañu waa Pikine amaa muy dem donc Dominique soo xoolee tey bu njëkk kenn amul woon fi tudd fi faj mais léegi boo ñëwee fierté la pour yow am na ophtalmologie am na ay dentiste opération césarienne yëpp dañ ko ci def donc bàcc bi mu jëlee relais bi ak équipe ak commune bi vraiment yaagul te liggéey na fi lu mucc ayib corona bi Pikine mën naa waat ci yàlla ni amul kenn ku ko ci gën a sonn bi corona bi di tàmbalee Pikine Ouest ba fi muy egg si nii kër gu ne fu ne lu ne def na ko sur le plan social moom mënuñu wax quoi ku daan jël sa dépense kër di ko jox keneen di xañ say doom di jox doomu jàmbur donc kooku c'est le sommet c'est le sommet c'est le sommet bàcc may raconter benn anecdote mhm. ASC cosaan moom bi muy nekk étudiant da daan jël boursam di bourse bourse étudiant mhm. di ko jël pour di réaffiler équipe bi donc pour vous montrer pour vous wax leen ni la dimension de l'homme dimension de l'homme boo xoolee population bi ko topp mhm. tey bu ñu nee pàcc bàcc defal na Pikine mais tey boo xoolee mbooloo mi ko topp nga xam ne li mu def niilul beneen bi fi ñuy wax nag mooy circonstance bi mu demee moo metti nit ñi bàcc kese bu demoon loolu metti nañu mais dangalé circonstance circonstances dañ bëgg que justice soit faite que justice soit juste mu éclaircir ñu xam bàcc ci repose en paix. oui oui moi je pense que en fait loolu moom xëy na euh, li nga xamante ne li moom la. Euh, mënuñu ci wax lu bari parce que aussi da di doon loo xamante du suñu wàll ñu war ci mën wax parce que mënuñu wax vraiment di avancer ci lolu c'est un dossier peut-être qui est un dossier médical au départ mais qui sera peut-être autre chose si c'est c'est le cas mais sincèrement pour l'instant mënuñu ci wax lu bari li ñu mëna wax rek moy jalé wa Pikine jalé wa département de Pikine jalé famiyam diko ñaanal yalla vraiment fofu gënal ko fiyam euh, Abou Chamban, mhm. euh, dirigeant ASC de Sicap moy koñ bi Samba Sarr dëkk Euh, Abou Thiomban nag moom dafa dafa bokk ak mhm. kon Abou yaakaar naa woon nga mën a indi waaw témoignage bi ñuy témoigner ci moom rek mooy Samba nit ku baax la woon vraiment ku am yitte ci nit ñi la ku yàgg sonn ndax nit ñi waaw loolu lañ ko xamee bu ñu bu ñu dëkkee fii 75 ba léegi Samba ku ko xam xam ne soxla nit ñi rek lay daw Samba a voulu être député Samba a voulu Samb nekk na secrétaire exécutif euh, comité de développement sanitaire Dominique parce que injustice yi mu fa dégg moo tax mu dugg fa pour régler problème yi Samb lépp lu mu doon def rek combat bu mu doon mënal waaw il a été toujours au devant de la scène pour les intérêts de la population ñu dëkk ak moom cité débat, bien que si cosaan lay militer mais ñu dëkk ak moom dëkk bu rafet maa ngi moom déjà comme ni nga ko waxee liggéey nañ ensemble trois ans à Sosodra mais li ma la ci mën a wax mooy maak Samb mosuñu werante ci wàllu football.

ak naxar bi ñu am déggante dem barki dem ba léegi naxar boobu gunge bi ñu ko gunge wane na ko vraiment mu nekk ni koo xam ne c'est une personne transversale multidimensionnelle ci côté boobu ne social euh, liggéeyam il s'est toujours sacrifié pour la population kooku exemple la boo xam ne ñun waa Pikine yëpp war nañ ko xool te ni mu demee nii aussi tamit war nañ ko leeral parce que naqari na metti na te vraiment nit ñi mënuñ ko accepter vraiment li ko dal dafa métti mérité wu loolu Samba def na ci Pikine loo xam ne vraiment dama mënoon nek yeneen condition mais pas condition yu mu demee nii c'est injuste c'est inacceptable vraiment loolu moy naqar bo xam deux jours mom lañ fanaanoo mom lañ nekkee vraiment ñëw ci mënuñu woon ñak ñëw and ak mo gunge ko ba xam li maître bi nekk ñun ñu mën ko génne partager ko ak nit ñi mu mëna génn ñu mëna dem ak jamm légui nag li ci dess moy Samba dem na légui Samba dem na li fi des naka lañuy def waaw lim fi bayyi naka lañ koy téye turu Samba tamit warul nul Samba dafa nekk koo xam ne il mérite beaucoup lu nekk mérite na ko Pikine ci sportu Sénégal Samba mérite lu nekk man de vraiment je suis prêt à être dans la réflexion pour que Samba ñu jox ko turam mu bañ a nul waaw quand je dis ça nag lu ne mën na nekk mais daal Samba ku baax la woon te vraiment ñu ngi yaan yàlla yàlla yóbbu ko ci àjjana yi gën a kawe lépp lu mu defal ci nit lu baax yàlla na ko yàlla fay njaboot bi fi bàyyi tamit yàlla na yàlla teg ci loxom te nit ñi tamit nañ bàyyi xel ne dafa bàyyi njaboot waaw nit ñi metti lu yëpp nañ jàppale ko taxaw njaboot gi ba nga xam ne du am benn problème di jaale waa famille yëpp di jaale sama bopp di ko jaale waa Pikine yëpp encore une fois dañuy dem kër ga am na ñi nga xamante ne njaboot gaa ngi fa am na ñi nga xamante ne jotuñu doon woon jot ci armeer yi incha allah dañuy dem ànd ak ñoom recueillir témoignage yi parce que nit bu baaxee nit bu baaxee wala nit bu génnee àdduna dañ koy témoigner lu baax li nga xamante ne moom la fi jot a def donte malaaka yi dañ koy jël waaye yàlla ñu gën a xam moom li nga xamante ne moom la seexoon ak nit ñi waaye dafa rafet ñun li ñu xam ci moom ci la rafet ñu seede ko parce que dañuy ñaan itam ñun bu ñu génnee àdduna incha allah ñu seedeel ñu suñu bos kon nag ñu ànd dem ci kër ga jëlaat yeneen seede Euh, les responsables du football particulièrement nous le tchassar parce qu'il était en mission pour l'ASC Tchassar. mission Cosaan la nekkoon en tant que représentant de la l'ASC Cosaan nek président du district sortant ñu créé ay assemblée dans les circonstances que nous savons tous mais mu sommes dans ce football là am une convocation des présidents de club devant recevoir le président Augustin Senghor, nous cogiter sur la question, sur, l'Assemblée générale à venir. Je pense que c'est une personne habilitée, une personne de droit, pour pouvoir porter la voix, pour pouvoir place ci salle donc personnalité si nous suñ accès à cette salle je pense que nous mënti xew lu xew nit ñi ay responsabilités nous situer ko. donc le consensus bi nga avons ci la vers le 7 août moom un grand monsieur. Et nous en profitons de cette occasion pour demander aux autorités, pour demander vraiment à ces responsables-là, que ces hommes-là du consensus, nous nous la lanterne des Pikinois, nous lèvent la lanterne des Tchassanois sur cette meurtre-là. Donc les responsables au premier plan, nous soutiennent. je parle du ministre Ablaïso, on dit l'homme du consensus, je parle de Augustin le bénéficiaire de ce consensus. Je parle des responsables du football de Pékin, à savoir le président, euh, le président du district fictif de Pékin, Babacar Gueye et enfin le président de l'État de Pékin, euh, Russie, qui d'ailleurs n'est plus de Pékin. Aucune de ces instances, il Moko a du football, de Pékin. Le football, d'un ko régir par rapport à l'organisation administrative du pays. Donc, le département Kermassa, c'est ASM ak club c'est de son de donc il n'a qu'à plier bagage à Kermassar pour voir une responsabilité mais il ne peut plus représenter et parler au nom des Pikinois sur la question du football donc le complexe a détail donc mon amatu n'est n'est phase par rapport à la réglementation de ce pays là donc ces quatre personnes là voilà ces quatre donc ces quatre hommes donc il va falloir que la justice soutienne situe degré de responsabilité par rapport à cette meurtres, que les choses soient claires nous ñi en tout cas une conscience tranquille nous def suñu continuer qui sera encore une fois à jamais dans nos cœurs de tous les pas que nous faisons dans cette ville là l'ombre de Samba Sar en est conscient donc pour que vraiment nous ñi nit ñi population pour que lépp en tout cas comme nous ñu ko doon nous nous dal bu Nous koy may que la justice faite quoi tout autre lu fi c'est la responsabilité de ceux qui doivent lire le droit et qui ne l'ont pas et qui ne le lisent pas donc nous avons aussi une ñuy cette responsabilité de lu fi euh, pas plus tard que jour où nous avons eu réunion on a parlé à 15h40 on a longuement discuté sur ça Malgré ne ko eu du courage quoi de toute façon. Euh, parce que la veille je ngi moom dañuy ci consensus bi suis en waxtaan ci consensus bi je suis pour Augustin Senghor Sidi qu'est-ce que tu en penses Je ne Augustin Senghor vu que j'ai def trois mandats une quatrième mandat pour moi, ce n'est pas possible comprendre nga mu ne ma nag mais lépp lu ñuy xool rek nañuy xool intérêt cosaan quoi parce que aussi cosaan dafa am enjeu yu bari yu mu jëm suñu kat yu nekk suñu kanam te dañu war a xool suñu intérêt quoi parce que aussi sport bi dafa metti te aussi amuñu budget boobu quoi man quoi bien vrai que c'est ça mais nag aussi Augustin pour soutenir ko day jafe quoi mu ne ma consensus bi trouvé nañu ay accords yoo xamante dina am suñu avantage dina ci nekk le lendemain ça a que le consensus bi ci qu'on au téléphone Je me ko dit « qu'est-ce que tu en penses les choses commencent à être compliquées quoi ko qu'est-ce que nous allons faire On de toute façon on va voir ce qu'on ce qu'on va faire il faut que nous avec ak mari Touré daal pour man mooy un avantage présentement parce que consensus c'est ci toj la jëm quoi mu ne ma ah a pas de problème quoi de toute façon après on va se voir à 18h je l'appelle je tombe sur Serif son frère mon ma dit « Sarr génn na àddina quoi metti ma metti trop parce que Bac wax ci moom jafe na ci ñun quoi ñun ñëpp jeune cosaan bàcc que que muy man ma jama que muy Kelefa Wan que muy Ba Jaxate que muy Mama As ñun ñep dañu am lu bari lo xam te ni Samba defal nañu ko te aussi fay ko dina jafé ci ñun mais man en tant que jeune en tant que un pikin né je suis pas un Pikinois je suis un pikin né je suis né à cœur Madame Gazib et je sais de quoi je parle on va porter le flambeau et on va représenter Samba là où il était Et lépp lu mu doon def ci lu baax nañ ko continuer te lépp loo ne xeex la boo xam ne cosaan moo ko porté Samba nekkoon au devant de la scène ñun pare nañu joxe suñu bakkan pour Samba Sarr parce que Samba Sarr nag amuñu fayam quoi te yàlla na ko yàlla xare àjjana fi mu nekk yàlla na ko gënal fi mu jógee mais amel nañ ko jukkal daal. je pense que ce sera tout sauf une surprise tey que que les acteurs du football dans les différentes structures ils taxaw marqué le pas pour cet exercice là de CNP bi Nous avons nous marqué le pas je pense que ce sera tout sauf une surprise donc on en profite pour demander une collaboration donc ce combat là n'est pas le combat simple des Tchassanois. c'est un combat de tous les férus du football particulièrement les acteurs principaux que sont les responsables du football donc nous ci tout tout, ñi mu comme il ñu faral di wax et je pense que la commune de Pikine nous si les œuvres de Sambassa, nous nous avons bénéficié. Et je parle de la commune dans sa globalité. Toutes les ASC y compris. Donc après mon extend, il y a il y a tous les clubs de Pékin, tous les bienfaits football, bénéfices subventions et autres là. Je pense que le manager général de Diapo, m'a Mamba Lassène, mën na ci épiloguer. Donc ce ñu am ci ay résultats ci football au niveau local c'est la mère de Sambassa et de là, mooy jiitu tout, yi top ko ñu dem ci donc ici ce monde là se retrouve sur un principe. Moi, que dañuy taxaw marquer le pas par rapport à cet exercice là moi je pense que c'est tout sauf une surprise et on en profite vraiment donc Bon, nous avons une confirmation, mais on en profite pour saluer au moins cette idée-là, pour saluer au moins cette pensée que nous avons germée, ce fait que phase idée là Donc on en profite pour le saluer et pour masser au tion, Nous allons vous revenir parce que ça, ça émerge ici, une autorité qui ont football bifi, mhm. ils, sont, ils ont voulu marquer le pas parce que l'IFI am ak Samba Sarr balaa football bi ñoom dañoo nekk xarit ak Samba Sarr. Mhm. boo xoolee président yi boo xoolee ñu nekk zone man ak Samba Sarr def nañ 10 ans le match zone.

nit ku dimbala doomu aadama ñun nag ñoo àndoon di liggéey si nay leer Samba Sarr teg ñu place bu xam ne tegu fa kenn jigéenu nay leer korite day jot Samba Sarr jënd ay ginaar ñu ñu ko jox pour ñu koy séddale man mun naa koo tooy mooy mi ngi si dëgg maa ngi si fen dama la dama ay ginaar plus de cent ginaar mu ñëw jënd yëpp ne ma ci la séddale ginaar yi jigéen ñi nay leer roqee ba jaan ñoom ñëpp ay témoin ku nekk dama dem yëkkati ku ne diis ginaar jox la juru korite sa portable sonné yónnee la xaalis ne la jënd soble ak pombiteer Samba tey la waa Pikine xam dañoo ñàkk un grand homme nit ki balaa nga koo xam rek mu dee li mu am ni tey jii moo ko liggéey Pikine yàlla nag kenn mënu xëccoog moom bu doon suñu sagool rek mu toog fi ba li muy mbëbët yàlla may ko ko ba mu wax bëggee nekk maire yàlla xañ ko ko yàlla yóbbu na ko Dominique muy dimbal ay doomu aadama ay cas social Samba boo taxawee Dominique ne ko Samba yow laa soxla doo jënd ordonnance doo jënd ticket doo jënd dara day daw ànd ak yow lijjanti la ba mu sotti nga dem sa yoon dañu koy ñaanal saar fu mu tëdd yal na ko yàlla tabbi sa àjjana fi si ñun nag ñàkk nañu waaye dinañu ànd ak yàlla parce que yàllaa ñu ko joxoon yàlla moo ko jëlaat yàlla bu ko seytaane jiitu ci bàmmeelam ndax tàngaay bi temps yëpp metti woon na mais gis nga tey bésu teyam bii muy yendoo taw ba ngoon ni suuf si seddee yàlla na xolam sedd nañ ci biir bàmmeel di yàlla nag waa cosaan yi que nañu nag kuram-kuram placé Samba Sadio na aja trop trop trop trop trop mais nag ya na ya yàlla may ko xam rek mën na ak Samba mais Samba moom dootuñu ko am ndax Samba xoolu bëkku jëm xoolu daagu daal xoolu ken sama dom febar na ñu téye ko nawetaan wallahi azim min ci deug dëgg maa ngi fen mom moko dindi putam lañ téye woon moom moo dimbali ba put bi dañ ñu téye ko mom moko dimbali su ko neexoon ne fu balul mais bëgg ma ak ma mu moma sama dom bama jotat sama dom loolu mu defoon ci sama doom maa ngi koy ñaan. waaw doy na doy te tak euh, dès à présent lépp lu ñuy defati ci gox bi lépp lu ñu amati fii su leen. euh, 25 quartiers qui représentent la, la, la, commune de Pékin Ouest, sur les 9 AIC qui sont là, Samba Sarr dina ci am wàllam te loolu dañ ko def sacerdoce te nañ dañu bëgg yéen journalistes yi ngeen jàppale ñu ci parce que amuñu ko dul on a perdu un grand baobab est tombé vraiment rip Bathie et je salue son mémoire